salaatun wa tasliimun gannaaw ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant Cheikhul Khadim bu baax euh, ñu ngi ziare bu baax suñu kilifa Cheikh Mahamadou Bachir euh, mi ñëw tay ci jumaa ji mag ji euh, ngir liggéey biñ ñu fi war def ñu ngi yàlla bu baax nag ci bi may kattan ak wér ñu teewe ko ba mën a tàbbi ci liggéey bi ñu ñaanal jiital ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi tamit ko wér ba naal yi mu am yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa yëpp mu def ko te ànd ko ñun ñëpp taalibe euh, loolu kon ci ndigalu Cheikh Mamadou Bachir euh, euh, tey taxawaay bi moo doon ñu tàmbali liggéey yeesal karo yi ci jumaa ji euh, bëgg ko tàmbale nag ci euh, bunt yi nga xam ne ci lañuy ci duggee ci jumaa ji nga xam ne dafa laajoon yeesal ndax léeg-léeg tàngoor rek yu mel noonu ci nekk euh, kilifa yi ñeewante ci taalibe yi amoon yéene soppi ko kon loolu moo waral ñu tàmbali liggéey bi waaye nag des na ko gën a yaatal ci yeneen yeneen anam euh, Cheikh Amadou Bachir nag joxoon joxoon ma ci ndigal euh, boole ma ak sëñ Moustapha moom mi nga xam ne moo moo fi moo fi teewal njabootu waa kër waa waa Njuga Keppe famille Njuga Keppe yëpp alako mm-hmm. suma ram dool li njëggal ak yërmande mm-hmm. yàlla dogal moom lu mu fi bàyyi woon ay karo yu yàgg yu mu fi bàyyi woon nga xam ne ca pale ba la jëmoon palais palais palais ba ñuy wax palais Ndiouga Kébé euh, loolu ko taxoon a jóg ci ca jamono boobu yàlla dogal boobu ba léegi karo yaa nga fa waaye kon suñu borom booba dogal na ne euh, karo yooyu ci jumaa ji la jëm fi waaw kon euh, ñu buñ ci waxtaanee ba Bachir xam naa dana ci dana ci gën a xóotal léegi. Hmm. mu mu boole ma ak ñoom. Hmm. waaw bu ko defee liggéey bi day nekk euh, euh, yeesal kar yooyu. Hmm. Euh, yaakaar naa ñetti xibla yi ma wax ni li léegi. ndax penku bi moom defaroon nañ ko ba pare. waaw waaye ñetti xibla yi desoon nga xam ne mooy yoon yu tàng yi. moom la ñuy loolu nag lu ko liggéey mi fi moom. waa kan Ndiour bi joxoon nañ ko. muy muy deux mille sept cent mètres carrés. xam naa nag. yéene ji moo doon gën a yaatal loolu hmm. euh, gën a dolli hmm. ci yeneen barab yi nga xam ne dafa waral dafa laaj defaraat hmm. ci biir jumaa ji waaye loolu lépp Cheikh Bachir dina ci dellu si euh, moom mi nga xam ne mooy kilifa liggéey bi kon daal ñu ngi saar ñëpp ci sant yàlla bu baax euh, di ci am yaakaar bu baax ndax ñii nga xam ne yàlla yàlla dogal ñu tabi seen loxo tey kenn duna guleet ndax ay waxtaan ci rek képp raj ni ko moo koy def ci jumaa ji moo def décoration bi ci biir ak yu bëree bëri yoo xam ne gannaaw buñ ci buñ ko jullee daal moo ci njëkk a dugalaat loxoom ba lu bëri moo ko ci taaral kon ñu ñaan moo tuuti moom dool yërmandeem dool leeram wàllu ko sëriñ ba Cheikhul Khadim ñaan njabootam gi fi bàyyi tam suñu borom teg ci loxo ba lépp lu mu yéene woon a def ñu defal ko ko mu ko ba def seen wàllu bopp loolu daal mooy kàddu yi di ñaan ci tàmbali bi ñu tàmbali ko ci jàmm ak ci alhamdulilah bi ne mu mel na gë na ko gën a te gënal sëñ bi daje ci daje ngeen suñu taam bi tax ñuy def asalaamaaleykum wa rahmatullah rahmatullahi taala wa barakatuh bokk jullit ak bokk taal bi yëpp ñu leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fii Serigne Touba tey borom liggéey bi te lii lépp itam di xalaatam ak ndigalam daanaka lépp ci li ma ci leer sax sëriñ Maam Thierno mi nga xam ne moo fi nekkeel nekk fi sama jëw yi tamate ko sëkk ndax luñ ko ci xas wax rek doo ko soñaat te loolu lu jafe la lu jafe la ci koy taxawloo liggéey di ko jubbante wala nga koy jàjj waaye loo ko xas wax rek waa juróom waa juróom daa def rek noonu lay doxee ñun suñu Moussa Bachir moom xam nga noonu la tàggate njabootam gépp ci pëstéef ak yitte ak taalibe moom ndigalu suñu Tuubaa rek duñ duñ la sax xalaat noonu la noonu lañ ko biir laa koy wax ma neen waa Daaru Minam niñ bindoo mooy képp kuy seen kilifa duñu am duñu am xalaat ci yow ba ma di ko misaal ci ma eh, nekk ak suñ Sidi Mokhtar ci woon benn yoon ndigal ma àgg ba wax ma ne xanaa ko defoon nangam dina gën a baax Moustapha ñoom noonu lañ bindoo kon ñu koy seere suñu cant ci liggéey bii yëpp tàmbale ko ci université ba hmm. ndax yàlla def na Cheikh Mamadou Mountakha ba mu toogee si Sëriñ Tuubaa ne itteem jëpp université bi la hmm. yëkkati ko teg ko ci sama loxo ci doyloo ma hmm. doyloo ma ci lool ak yaakaar ji te njàgg ànd liggéey waaye liggéey yi diis ma xalaat ci lu yàgg lu mat weer ba xam nuñ ko war a tërale ba yàlla def sama xel dem ci jëmmam waaye mu noppal ma ci lool ndax jàpp naa ne bu demee wutoo noonu na ngeen di waxoon mu agsi fii bañ ubbi ko waaye xaaj sax mën na ko bañ def kon kon kon ñu ngi koy seere suñu cant bu baax ndax mos ciy def dara loo xam ne dëppootoo te bëgg-bëggu sëriñ bi te am solo si ñaafi yi itam ñu ngi lay ñaanal bu baax xam naa taxawaay bu yàgg bi waaye yàgg mboolem ñi fi nekk ñëpp ci daayira bi hmm. daayira mu xadama xam ne seen taxawaay ndax hmm. itam seen yitte yëpp génnut hmm. lu gën a taaral jumaa ji ak lu gën a rafetal ak lu fi war ak lu fi manqué ngeen yégle ko te di ci soññee kon nag liggéey bi ñuy tàmbali tey euh, liggéey la boo xam ne liggéey bu am solo la ndax karo yi xam ngeen ne euh, ñaari karo du ko seex am na ci karo yu weex wala karara am ci boo xam ne garanti li garanti nag mm. bu seer la ci gën a seer la bokk soo waaye mm. Mm, day tàng boo demoon boo demoon Madina sax am na fa waaye dañ ko mujj dindi ca fa gën a bari ndax karo bu seer la waaye ñaar li ci ëpp ci biir lañ koy jëfandikoo foo xam ne aw tàngoor du fa agsi bu dee tàng day day téye tàngoor boobu nit ñi duñu fi mën moo tax penku bi euh, ci jamono suñu Sidi Moxtaar lañ ko soppoon defoon ko comme nii ndax bii alhaj jokke moo ko fi njëkk a def ndax karo bu bu seer boo xam ne ci gën a seer ci àdduna lu bokk waaye dama boo fi masaan jaar ñu sërmal ajjuma léeg da ngay yërëm ñi hmm. da gis nit ak positif musum bi dàllam musum bi dàllam ndox ba ci yàgg nga gis ne mënatu mënatu koo dékku hmm. ndax ndax tàngooru métti sama classe bi nga xam teel nañ ko xam sax ay kawas dañu yóbbaale hmm. waaye xëy na ñëpp tolloowuñu ay ay ay dégg naa ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mu wax ne wax na ne sori dàll ci penku bi bari na lu ni ñàkk te hmm. mu baare ko ne ba ba ba ba ni ko maa ko ci yooyu hmm. ba nit ñi di fa sori hmm. nag liggéey bi moom jumaa ji moom ndigalu Sëriñ Tuubaa la mooy ndigalu Sëriñ Tuubaa li ko gënoon a ñor rek wax ci wax lu bari ndax bu àggee ci ne bu ngeen ko defutoon malaayika yi def ko kon loolu moom lu sottile la noppi ñoom ñii nag seen waajur am taw féexi te sëñ sëñ la Ahad ku ko xam ku ne xam ne ku ma noonu segg mbir la ndax dadaa wax naan mbañum yoon wi mooy tàllal sa loxo ku dul yàlla mooy mbañum yoon wi ma du ma duye di li xëyrihi indi indi junoon waqaada li xëyral xalaal wal funoon moo tax bari waa ne ku mas a dikk ci dikk yi bëgg dara waaye daw ko nangu moom nag moo yoon ko mu liggéey ci jumaa ji liggéey na fi liggéey bu bëri bëri ndax naa ci nettali benn kéemaan ndax Cheikh Mamadou Fadel bi liggéey bi àggee ba jumaa ji àgg ndax moom danaa laaj Sëriñ Tuubaa ndigal waxtu ne ko dama bëgg jox ma ndigal soxna Aminata Bousso la ko daa jaarale ay lettre yu mu ko daa bind ba sëñ bi tàmbalee jumaa ji nag woo leen moom ak si Cheikh Mamadou Moustapha magam ji tedd ja ak sëñ Massamba ak ñam leen boole loon bi Ibrahima Fatim moo doon jëwriñ ji liggéey bi ak Cheikh Issa Dieng Cheikh Issa Dieng moo doon taxawu jumaa njaarim jumaa waaye ci la bokkoon euh, suñ bi ko sama liggéey boobu na nga fexe ba ku ñëw na ca fekk ku dem na la ca bàyyi na nga fexe ba ndigal li ma daal laaj tam euh, na nga fexe bu la ca kenn ma moo tax mu def ko yitte suñ baar mos na maa dégg muy netti décompte yi ñu def ñu daa def nii sax bu ko bu ko daa joxe moo ko daa toppal boppam xaalis bi sax dafa daa yëkkati di ci fas. li nga xam liggéey jumaa yi ni mu yore sëñ bi kon bi liggéey bi àggee daa jàkkaarloo sëñ bi na ko fii leen toll ak yow ndax fele suñ dool fele fele suñ doole toll waaye buñ ko mënoon ñu def ko or <laughs> ñu ma tax ñu bari bi ñu déggee ñu ne alaaj njooy def na or ci barabu suñ Tuubaa mm-hmm. ñaa fekkoon waxe suñ Fallu ja mm-hmm. ñoo xam ne baatim boobu mu ak si kon liggéey bi ngeen tam daal di yéen njabootam gi mm-hmm. te yàlla def ren la am ñeent fukki at hmm. kon loolu tawfeex la te mu jëme woon ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa yéen itam ginnaaw bi ngeen jël ko def ko addi ki fi nekk Sëriñ Tuubaa hmm. mu ne fi ba nëgëni hmm. yàlla dogal mu dem ba du Mouhamadou Mountakha di ko commande ngeen war koo jënd mu tombeek seen xalaat kon lool taw tawfeex la ak day mel ne payuk Sëriñ Tuubaa la rek xasida gi ma Sëriñ Afe jox xam naa dinaa leen ko jox ngeen tasaare ko dañ ko ko jox léegi mu joxaat ma ko waaye boo xoolee ba ci biir najzil muhsinina la ko la ko Sëriñ Tuubaa tànke mm. te gis nga yaxdimuhu fuaadu minni wal yadu ilal jinaari mm. wa hudahu al afidu loolu da firndeel la Sëriñ Tuubaa moom dara nekkul sut fa lu doon rek lu mu kon nag yéen itam liggéey gam liggéey la Sëriñ Tuubaa rek moo rogalaat ci yéen ba tawfeex ji ngeen am def ko mm. ndax ay liggéey la yu bari yoo xam ne sëriñ bi war na ko ci jumaa ji ndax gis ngeen ne parasol yi. Mm-hmm. gis ngeen ni mu mel. Mm-hmm. waaye si moom xam ngeen ne université dafa nekkoon liggéey bu rëy. Mm-hmm. bu neexutoon boole ak lenn. dëgg moo tax ndegam cete na nag am na yeneen liggéey yoo xam ne war ko fi àggale. ci. waaye lii moom yàlla def na ñoom ñu am tawfeex tàmbalee ko. laata suñ bi def liggéey boppam bi. donte doon def na ci lu bari nag ndax xuba yeeg yëpp moo ko àggale boo ko doon xool ëpp na sax un milliard. waaye liggéeyam décoration day day moom mel noonu day seer. Mm. te doo ko mën a xam. Mm. kon ñu ngi sant baax di leen ñaanal yéen suñu Moussa. Mm. di yóbbante nuyoo ci sa njaboot gépp. mboolem ngeen ko àndal. di ñaan ci barke Serigne Touba. mi nga xam ne moo tax ngeen jëf ko. ko ci liggéey ba seen waajur ji liggéey ba Serigne Touba. ci nekkam. tuyaaba jaay lépp fekk ko fa te yéen itam ngeen bokk ca mm-hmm. waaye ñu ñii ko fekk ñëpp ak bépp taalibe ak bépp jurit. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Cheikh Mamadou Bachir ñu ngi lay nuyu di la siyaar bu baax a baax di sàkku nuyoo boobu ak siyaar boobu nga tegal nañu ko loxo Cheikh Mahamadul Muntaxa di nuyu mboolem kilifa yi nga àndal sëriñ maam Thierno mi nga xamante ne ni moom sëñ Moustapha Bassirou di sa jëwriñ ci liggéey yu bari yi nga xam ne yaa ak Cheikh Mahamadul Muntaxa te ngeen ko loxoom. ak sëriñ Xaafiya ak mboolem kilifa yi mu àndal ñu di ko jàppale ki jumaa ji muy liggéeyub sëriñ bi ci sëñ Moustapha Kébé nee na moom amul kàddu yu sànni kàddoom mooy sa kàddu dugg na ci biir nee xanaa dañuy sant rek cant koo xamante ne nii am na fa mu tàmbalee waaye amul fa mu yem ndax bu àllaa gi njugoo Kébé daan jëfal sëriñ bi dem ba am ñeen fukki at ginnaawam ab liggéeyam ñëwaat duggaat ci biir liggéeyam sëriñ bi nee day war na loolu kat liggéey ba sëriñ bi nangu na ko ndax mënoon nañ koo bëgg te duñ ci am ndigal mënoon nañ ci am ndigal tamit te du jàppandi waaye ñaar yëpp nag dajafe bëgg gi am na ndigal li am na kon nee na ñu ngi sant sëriñ bi bu baax di sant cant googu nga jotal ko sëriñ bi sëñ Moustapha nee na moom benn kàddu rek la ci am loo xam ne da koy dugal ci sabax gi di ko seere ndax nee na Allaay Njuuga Kebe bi mu tukkee dem Baxdaad dem siyaara ji barabu Seydina Aliyun karamallahu wajhahu nee na ñam àndalan daf ci am ko gis benn làmp boo xam ne lépp day or nee na mu yéem làmp ba nee na Allaay Njuuga ne ko ci yow day xamoo li ngay wax daanaka rek daa ne ko suñu waaj ya Tuubaa day kii am na fi junni at am làmp bi bàyyil ba suñu waaj am junni at fam tëdd waxuma ab làmp waaye barab bépp lépp or lay doon jumaa jépp or lay doon waaw nee noonu la ko waxee woon nee kon nag lii ni nga ko waxee léegi rek loolu lay dëggal nee na jërë ñaanal baax a baax sa taxawaay ndax nee na bala sëñ bi boole ak ñoom ak léegi lépp ci soññ ak i taxawu boole leen ak sëñ maam Thierno bañ def lépp ba di ko tàmbali tey suñu borom yow tamit kàttanal la dëgëral la ndax sa taxawaay yoon yëpp rafetlu nañ ko taalibe yëpp lu nañ ko loolu daal moo daloon kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ya rabbi suq minni salaati ila nabi wa kulli